أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi comme niñ ko baaxoo def ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey ñeenti aaya muy aaya 36 37 38 39 ñeenti aaya yi sunu borom subhanahu wa taala bokk na ci lim ñuy ciy jàngal mooy juróomi mbir bi ci njëkk mooy taqrir ishratu huquq wal amru bi aadaiha fawran wa hiya cibadatu llahi waxda wal ixsaanu bilwalidaini wa ila kulli almazkurina fi layati l ula bokk na tey ci li ñuy jàng doomu ndeyi mbokk yi ñun ñépp ñu bokk ànd xam ne sunu boroom moo ngi saxalal droit bi nga xam ne moom lañ am kenn ku nekk ci ñun muy droit dund ci nekk ci joxe àq yooyu ci situation bu mu la mun a nekk bu mu la mun a fekk loolu ay àq la yoo xam ne da nga ko war a def te mooy àq ci dund li ci njëkk mooy ibadatullahi jaamu yàlla da nga ko war a def foo mën a nekk dangaa wér dangaa feebar dangaa tukki dangaa teew dangaa am dangaa ñàkk góor nga jigéen nga mag nga ndaw nga jaamu yàlla daf laa war tabaraka wa taala waaye jaamu googu moom kenn amoo droit dendale ko kenn wala lenn beneen bi mooy wal ihsaan ilal walidayni rafetal ci sa ñaari waajur daf laa war nit amul lu dul ndeyam ak baayam di sëriñ bi di wax ne wër nañu alquran ba sonn téeméeri saar ak fukki saar ak ñeent gisuñu ci fenn fu yàlla wax ne na leen sëriñ gënal seeni ndey ak seeni baay amul ginnaaw yàlla ndey ak baay ñoo ci tegu mais maa la saf réew mi xamuñu loolu da ngay gis ku romb ndeyam ak baayam di teral yi keneen alal joo am sotti ko teraanga boo am jagleel ko ko yére yoo am jox ko ko bàyyi sa ndey ak sa baay ñuy tumaranke loolu du benn diine loolu du benn islaam ak ku ko mën a def nag loolu dañ ko war a jàng rafetal ci sunuy wayjur àq la bu yàlla rëdd ci sunuy jë ak ñeneen ñi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala tudd na leen ci aaya bi te bu ñëwee ci tafsir bi di ngeen leen gis ci ay àq yu ñu war a joxe ñaareel ci li ñu jàng ci aaya yi mooy zammul ixtiyaal an naajim anil kibri wa zammil faxri wa bayaani kurhillahi taala lahuma war nañu xam ne lii mooy rëy ak noo ko mën a tuddee ngand ngand lu génn dënn ci jukkoy yàlla ŋàññi la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna allaha la yanzuru ila man jarra sawbuhu xoyala képp kuy diri sa tubéy comme ni xale yi góor yi def léegi wàcc seen tubéy yi di ko diri génn seen dënn yi yenent bi nee na ku def loolu yàlla du la xool yowmal qiyaamati képp ku diri sa yére di ngand ngandalu yàlla du la xool bu yeboo nga xam loolu kon ay jikko la yoo xam ne yàlla ŋàññ la beneen bi mooy alfaxr tiitaru puuka réew ñaari jikko la ngand ngandalu ak puuka réew wanewu loolu yàlla da ko ŋàññi ñaari jikko la yu mu xas ci aaya yi ñu war ko bàyyi xel ñetteel xurmatul bux nay dafa xaraam ci islaam ab jullit du nay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na iyaakum wa sux fa innahu alaka man kaana qablakum maa ngi leen di moytandikuloo mot ndax moo alagoon ñi leen fi jiitu amarahum bilqatiati fa qataau digal na leen nañ dog seen mbokk ñu daal di dog wa amarahum bilfujur fa fajaru mu digal leen nañu kàccoore ñu kàccoore am na riwaaya sax bu mu ne xamalahum ala an shafaku dimaahum wastahlu maharimahum musiba boobu muy nay yóbbu na leen ba ñu tuur deret yemuñ ci li yàlla araamaloon ñu daganal ko kon bàkkaar la boo xam ne day ubbi yeneen yi bunt yooyu yëpp tey nekk na ci aaya yi ñuy jàng mooy ay jikko yu ñaaw yu yàlla ŋàññ yu ñu islaam suñu diine soriloo ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax a baax aaya yi ñuy jàng tey ci aaya yi defar jikko doomu aadama la bokk waaw moo tax ma yàgg di wax ne dara du nu defar ci kaw suuf wallahi alazim dara du nu defar dara dara mënu noo baaxal ay luwaa du tax ñu baax de police gendarmerie douane li ci des police de proximité bu ñu defoon buntu kër bu nekk am benn police sax du tax ñu baax non mais parce que nit ñi li leen defar du ay police nit ñi da leen di defar yàlla moo leen defar defar seen jikko ba fu nu nekkul ñu xam ne lii ñun waruñu ko def rek duñ ko def mbokk yi Medine amul woon police wala amoon na police mi ne lu mu naw amuloon ay alkaati bu heure julli jotee dañuy bàyyi noonu njaay yi dem julli ji ba léegi fi may waxee ngeen dem leen màkk wala ngeen dem Medine bi julli jotee ndeysaan da ngay gis ñëpp tëj dem julli ji am ñoo xam ne sax dañuy wàcc rido rek am ñoo xam ne sax ñoom dañuy teg benn panneau rek daal di bind assalaa bal sax ñiy jënd ak ñiy jaay xam nañ ne heure julli jot na kenn dootul jënd kenn dootul jaay dañuy dem julli ji kenn du tëj fi nga nekk ngay waaye fii ay Sénégal ku fi doon julli ba njaay jot wala nga bàyyi sa njaay julli jot nga ne da ngay dem waa ji kay sëñ bi day day jël benn kuur teg ci kanamam lal si jaade bi ci kanamu njaay bi wala waa ji dox demoo jàkka ji mu ne wuy sama bagage yi pourtant police am na de yeneen yeneen yëpp am nañ waaye du baax parce que jikko yi ñoo yàqu ñeenteel mooy wala waaw ñetteel mooy xurmatul buxl wal amru bihi wa xurmatu kitmaanul ilmi wa xaasa shar'i minhu dañuy war a jàng tey sunu ay mbokk yi mooy nay dafa araam waaye nëbb xam-xam araam na nëbb xam-xam comme li am tey nga xam ne boroom xam-xam yi duñu wax léeg-léeg nga dégg ci quartier wala ci gox ci barab ñu ne yow di wala raw te du wax yow di wala raw te mu ngi nii noppi lan la boo jógee rek du ñu tonxal yow di wala raw te mu ngi nii noppi kooku daa deful liggéeyam bu la xamoon li ko yàlla jox du noppi ndax alquran kenn du ko jox muy noppi hadis yonent bi kenn du ko jàng di noppi sallallahu alayhi wa sallam ndax amaana la bu yàlla gàll ci loosu ñi ko jàng la tubayyinannahu linnaas wala taktumunahu jeex na yàlla da leen lii di ngeen xam da ngeen koy joxe da ngeen koy leeralal nit ñi yonent bi ne balligu anni wala aaya kon nag ki ñuy tagg naan ko yow da ngaa noppi musiba la ku jàng islaam du noppi rawatina nag mbokk yi ngay nëbb di nëbb ba nëbb ilmu shari xam-xamu sharia waaw léeg-léeg sax nga ni gaa yi ah sharia di amul solo am ni ko gaa yi defee léegi ci télé ci seen barab yi kenn xamul yi léeg-léeg nga dégg sëriñ bu ci ay taalibe wër mu naan ah sharia di amul solo sharia ah sharia de téere kese la téere bu weex kese la ci kaw yeex yee weex rek inna lillahi wa inna ilayhi mbokk yi bu sariya amul solo lan mooy am solo ci ñun kan moo indi woon sariya yonent yàlla muhammad jullit ñi lan la ñu war a dund sariya ñu ne amul solo ah gars yi de su ngeen gisee ñu soxor sariya la ñuy dund ñoom xamuñu lu xew moo tax it gis nga am na benn borom xam-xam bu ne képp ku jël xaqiqa bu ko dund te duggoon dundoo sariya mu ne yaa ngi bëgg a jël gaal di ko dawal ci suuf ku jël gaal di ko dawal ci suuf nag kan naa yaag say mbokk di ngeen gaaw a toqi di ngeen gaaw a sonn ndax gaal moom du daw ci suuf loolu mooy xaqiqa bu àndul ak sharia alxaqiqatu la yataxaqaqu illa bi sharia xaqiqa mënul nekk lu dul sharia ñëw taxaw waaw yoo tax waa ji am juróomi jabar ñu ne non moom xaqiqa lay dund waaw dundul sharia allahu akbar ngeen gaa yi ne allahu akbar cëm ndax waa ji di naan sàngara ñu ne moom xaqiqa lay dund ah dundul sharia cëy waa ji daal lépp loo gis muy def lu bon pour gaa yi laaj ko dañ naan sharia lay dund dundul xaqiqa xaqiqa lay dund dundul sharia mooy musiba bana xaqiqa mooy ñëw naan nañ araama nañ daga nañ def lu yàlla araamal bana xaqiqa lu yonent bi ñemewul woon Aboubacar ñemewu ko Ousmane Ali ba ci sahaaba yi ba ci taabiin yi ala kan moo koy ñeme dul ku ñeme yàlla rek ku ñeme yàlla koo fi gis daal mu bàyyi li yàlla araamal di ko def xëtt ko ñaanal ko yàlla bu dee sa mbokk la waaw bu dee sa xarit la bu yeboo nga waar ko wax ak moom dafa ñeme yàlla kese am na benn sëriñ bu ñu ñëw ne ko lu tax gaa yi di takk jabar yu bari mu ne nii nii rek nii gaa yi ne ko ah mu ne nii loolu leer na amul dalil la ñeenteel mooy xurmatu riya wa dammi saahibiha mbokk yi ngistal dañ ko ŋàññ waaye dafa araam ngistal mooy ngay def dara pour nu gis la ak a jafe mucc nag léeg-léeg mu nekk ci wax pour ñu dégg la léeg-léeg mu nekk ci gis pour ñu xool la yéen dem ne man samma samma allahu bihi wa man yurai yurai allahu bihi képp kuy def pour ñu dégg la yàlla dina def ñu dégg la de waaye pare nga yowmal qiyaam képp kuy def pour ñu gis la dinañ la gis yowmal qiyaam pare nga yonent bi doon na wax ne li ma gën a ragal ci yéen mooy lan arriya asirkul asgar qaalu ya rasulallah wa ma asirkul asgar qaala arriya li ma gën a ragal ci yéen mooy bokkaale bu ndaw sahaaba yi ne ko lan mooy bokkaale bu ndaw mu ne mooy mooy ngistal yonent ci yàlla musal loolu dina bokk ci li ñuy jàng ci ay loolu tamit dafa araam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mu bañ ñoo yàqal sunu jaamu yàlla saa yoo duggee ci jàkk bëgg julli seytaane roofu la comme keroog mbokk bi lu mu doon laaj mooy daw ngistal ba yàq sa jaamu yàlla ngistal bokkaale la daw ngistal mu yàq sa jaamu yàlla kon moytu noonu moytandiku juróomeel mooy zamm xurana ussu yàlla ŋàññi na àndandoo yu bon bëri na tey ku yàqu ci Sénégal bëri na ku dugg ci ay mbooloo yoo xam ne dañ leen di woowee lislaam te du lislaam ba nga bàyyi jaamu yàlla fekk àndandoo moo la ko teg gis naa benn mbokk pour le futa boo xam ne dafa am jabar am doom xam nga pour le futa yi bu ñuy ngénte ñoom dañuy jël këyit daal ci bind tur bi indi ko daal koy joxe rek ñu daal di wax tur bi papaay xale bi maanaam maamu xale bi biñ ko bindalee këyit bi tur bi ñu jox ko mu liir bu si gi xool doomam bi mu ne kii ngay tuddee xale bi mu ne waaw paa bi looloo ko jàpp mu feebar ba dee ndax ñoom xamuñu loolu bëgguma wax tur bi nag waaye daal yéeme na de bëgguma wax tur bi lan moo waral loolu mooy doomam dafa dem changé mboolooy dugg ci yeneen i mboolooy diine yu kenn xamut gëm loolu moom yëgul ne doomam loolu la te am na ñoo xam ne moom seeni cosaan xamuñu yooyu waaye Sénégal boo fi ñëwee te aaroo sa bopp aaroo sa njaboot bis di nga ñëw nga dégg mendi sa biir kër Sénégal moom xam ngeen li fi nekk ngelaw luy naaw la looloo tax ñu ŋàññ àndandoo yu bon képp kuy ànd ak ñu bon bu yàggee da ngay bon ku mu mën doon loo dëgër dëgër dëgër boo ànd ak ñu bon di nga bon am na ñuy tux tey lu tax ñuy tux àndandoo yu bon am na ñuy naan lu tax ñuy naan àndandoo yu bon am na ñuy génn guddi lu tax ñuy génn guddi àndandoo yu bon moo tax xool leen ñu ngeen di àndal mu ne àndandoo ñu bon yooyu nga xam ne dañ lay digal loo xam ne yàlla bëgg ko di la tere lu yàlla bëgg wa yad'una ilayhi quranaahum dañuy nekk ci lu bon ba pare di ci indi seeni mbokk seeni xarit moo tax waykat bi ne anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa kullul qarin bil muqarani yaqtadi wax ma koy àndal ma wax la yaay kan boo ma waxee ñu ngi àndal rek ma wax la yaay kan waaw day nga ni ku ku papaam ne am na benn booy bu fi doon ñëw tafsir waaye daan entraîné na ji mbër am na ñu daan dem seen kër di ko fi indi waaw bu ñu demee seen kër rek këru dars di waaj a jot bu ñu demee rek paa bi xam na ne gars yi moom lañ del si rek mu ne ko yow ñi ngay àndal ñi bëgguma leen gis sama këran bëgguma la fee gis bëgguma leen fee gis dégg nga lim la wax waaye ne ko waaw lan moo tax bëggu ko fa bëggu leen gis ñooñu boobu parce que xam na ne léegi doomam génn ci mbëri làmb ji nga xoolal gis nga xam nga lu ma la yëgal dama nga uti doole la wax nga entraîné nga bàyyi ñii yooyu la koy wax de te man nga entraînement ji bàyyil ñii léegi bu entraînement yi après fu mu jëm làmb ji xoolal ñuy encouragé seeni doom ci bëgg lu bon am na ci koo xam ne dafa bàyyiloo doomam jàng doom bu jigéen bëgg muuru li sa limaamu laay mu bàyyi law xale yi toog ay fan gisuñu ko ñu dem seeti ko fekk muy tànn ceeb xale bi toog seen saal di tànn ceeb ñu ne ko yow yow diw lu tax jàng seetoo la moo la dal yaay jaa ngi toog de di déewu jàng mu ne kii de daa bëgg a bon ndax nee na dafa bëgg a nekk ibaadu daa bëgg a bon ndax nee na dafa bëgg a nekk waaw kon ibaadu yi dañoo bon ah da ngeen a bon loolu de la meer bi wax walla rek xale bu bëgg a muuru mu ne daa bëgg a bon waaye nag fekk dafa bëgg muuru du jàngi fii lay toog bu yebam bàyyi jàng jaral na ko ñu moo tax Sénégal fa mu mel nii ngeen di gis li ngeen gis ci mbedd yi du hasard yàlla du jum mu ngeen mel rek noonu la leen di gouverner kon nañ leen bàyyi xel baax a baax a mbokk yi sunu diine lim ñuy jàngal alxuraan bi bis mu nekk ma wax leen ko bis mu nekk ma fàttali ko sama bopp fàttali leen ko maanaam ay atte la yu ñëw pour baaxal sunu dund pour defar nu waaw nekkul rek pour ñu koy neexal walla ñu koy barkeeloo waaye téere bu ñuy defar sunu dund la incha allah mbokk yi ak ñeenti aaya yooyu nekk sunu kanam mooy yu ñuy jël tey yarhamukallah aoudu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يهب من كان مختالا فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما mu ne borom bi nee na waabudullaha jaamu leen yàlla haza amrun li ndigal la mbokk yi fu mu bàyyi ko ci yàlla alxitaab lil muminin ñan la yàlla di waxal way gëm yi waabudullaha jaamu leen yàlla allahu akbar هذه الآية محكمة إجماعا آية بي تأي يخير لن لا آية بي دفع بولي لب جام لن يلا الخطاب للمؤمنين يني وحال موي وي گم يلا ومعنى عبدو لن موي معنى بعد بي يلا وحنا جام لن ما mooy atiuhu topp leen ko fii amrihi ci lim leen di digal ngeen def wa nahyihi lim leen tere ngeen bàyyi gis ngeen loolu mooy jaamu yàlla li leen yàlla sant def leen lim leen tere bàyyi leen maa gaayati zulli wal xubbi wa taazimi lahu azza wa jal li ngay def boo koy def da nga ciy boole bëgg da nga ciy boole toroxlu waaye li ngay bàyyi boo koy bàyyi da nga ciy boole bëgg da nga ciy boole toroxlu ñaar yëpp def mbir mi wane ne yàlla ne man de maa ngi koy def ndax sama borom a ko sant wane ci cawarte gu mët ngëm-ngëm gu mët ak toroxlul yàlla waaye booy bàyyi tamit noonu la booy bàyyi tamit da ngay bàyyi ngir yàlla la bàyyi loo waaw doo dem ba mënatoo xam nga am na ñoo xam ne ñu ngi bàyyi yu bari waaye dañoo mënatut waaw am na yoo xam ne ci mag ñi da ngay dégg ku naa ma ne léegi bàyyi naa ko xale yi ça veut dire que mënatoo xam nga ne tey boo ko def ñu ne la yow yow yow yow yow lii mooy lan yow nga daal di waaye léegi dinaa ko bàyyi waaye léeg-léeg nga xam ne waa ji bàyyiwul dafa mënatul da ngay toog ci benn place rek musique bi tëgg nga gis paa bi daw sànni maraakiis yi sànni benn ndeyjoor benn càmmoñ tëb tëb tëb cëppi cëppi gaa yi yuuxu tàcc ko mu ne cey ay waay jamono cey ba ma ca tollee kooku bàyyiwul dafa mënut maire yi tamit kasaali nga gis maire bu daw ba caag daaneel daaneel musóor bi cëppi cëppi gaa yi ne ko lii nag mu ne ba ma ci tollee moo tax ñu bëri dañoo fi mu nekk bàyyiwuñu tuubuñu mais dañoo mën a tut ba ci footballeur yi sax yaa ngi gis benn ancien footballeur bu ñu tëmbal bal rek mu tël kii fii tël tël ker ker ker daal di oh non dañoo mën a tut moo tax tuub ak bàyyi du benn ku bàyyi moom photo ya ngi ci amoon sax da nga koy xotti yére yi sax dañ leen di lakk ba nga ko doon defee doo fa jaar ku ko tudd nga xeex ak moom parce que loolu passé na naka la nit di bàyyee lu bon ba pare bëgg chaque jour ñu koy nettali wala moom mu toog di ko nettali jaamu yàlla tamit kazalika mbokk yi ñu bëri ci ñun tamit ci wàllu jaamu yàlla di nga gis ñu koy def mais est-ce que au fond am na toroxlu est-ce que au fond li ngay def nii nekk na soxal bëgg mi ngi mel ne yeewu fajar am na ñoo xam ne ñàkk pexe mooy tax ñu yeewu fajar de ñàkk pexe comme jour dimanche man damay jaaxal yenn saa yi li ma benn waaye doon wax nee na bu may xëy am na benn mosquée bu nekk jet d'eau ci kanam ñun ñëpp ma mosquée bi day fees lundi mardi mercredi jusqu'à vendredi mais nee na samedi dimanche dama gis kenn mu ne gars yi dañuy dimanche quoi kon julli fajar am na dimanche ah grâce matinée quoi waa ji dégg asalaatu xayru min mu bëgg a jóg non ne ko c'est la dimanche Iblis ne ko c'est la dimanche aujourd'hui hein waaw garaawul quoi naa bàyyi ba 11h rek ma julli fajar est-ce que loolu jaamu yàlla boobu am na ubbu gis nga kii jaamu yàlla ngir dafa bëgg yàlla kii jaamu yàlla ngir moom jaam la di jaamu yàlla ngir toroxlu allahu akbar kenn du ko yee ñaari yoon jógal julli fajar bal sax moom mooy programmer li ko yee waaye am na ñoo xam ne boo jëlul jaasi duñ yeewu fajar démb maa ngi woon xale yi may jàngal Facebook dañ ma envoyé benn vidéo benn paa bu yee ay doomam fajar mu ñëw yee leen ñaari xale yu góor mu yee leen ñu bañ a jóg maanaam ci salle bi lañu fanaan ci canapé yi lañ tëdd teg ordinateur yi mu leer na ñi léegi lañ nelaw ci ordinateur bi lañ nekkoon paa bi ñëw dajale fiil yi defar teg yee leen jug leen jug leen jug leen jug leen ñu bañ paa bi dem ñëwaat ñu bañ mu dem indi ndox ñu bañ tëdd rek paa bi daal dem indi courant nga xam ne kii yu mel ne portable yoo xam day maasaate gis nga paa bi mu taxaw ci salle bi daal ne affaire bi taal ko allumé ko mu ne trrrr ñoom ñëpp a yeewu daw fekku leen ci kaw la ci canapé yi ñëpp a daw génn salle bi xoolal courant moo leen yee courant bi paa bi duggee salle bi allumé ko rek mu ne trrrr ñu xam ne da leen di koy maas ci la ñeewu daw kenn ki daanaka dafa daanu ci buntu bi sax di raam di génn ndax bañ ñu maas ko courant bi léegi imagine jullit bu tolloo foofu bala nga yeewu ñu ne dañ lay maas courant nga doog a yeewu est-ce que yow julli googu boo demee di julli di nga toroxlu am ñoo am dañuy julli sax mere yàlla xaw ma yàlla lu mu yee nit ñi nii fajar xaw ma nii noonu la quoi dimanche mu ñu yee nii quoi moo tax am na ñoo am dañuy julli di xuloo ci julli gi ba julli gi jeex imaam bi guddalee sañu ne waa waa imaam kii nag gaawaay ñun dañuy tëddiwaat waaw lu muy lu muy neexal baat nii yëpp yaa ngi ci yaa ngi taxaw ci ginnaaw de di xuloo ak imaam kon nag yàlla jubal waaw di julli di xuloo ba julli gi jeex am na ci nit ñi waaw dafa bëgg a doxi sa soxla bëgg a forcer imaam suñ la bàyyi woon léegi nga forcer imaam ne ko gis nga aw ma temps gaawal te yaa ngi julli dalal yàlla yërëm borom bi nee na wa abudullaha jaamu leen yàlla wax ji doy na waar de lu mu ci teg wala tushriku bihi shay'an bu leen ko bokkaale ak dara bu leen ko dendale ak lenn laa taabudu maahu xayrahu bu leen boole yàlla ak leneen bi ayi nawin min anwaa il ibadat allati taabudu llaha taala biha ibadahu mbokk yi jaamu yàlla bu mu mun a ne bul ci duggal keneen keneen moomu ko yàlla rek moom moom moom loolu bul ci dugal keneen bul ci dugal leneen loolu mooy loolu mooy bu leen bokkaale yàlla yes démb dama déglu maa ngi vidéo bi ba tey ñu ko envoyé benn cheikh moom ma ko envoyé Medinatul Munawar benn waay buy xas ñi woote ci tawxid ñi tere nit ñi bokkaale benn waay di leen xas wallaahi li tax tey nit ñi duñu jaamu yàlla mooy dañ leen a dañ leen a yombalal bokkaale ubbi leen ko bunt yi bokkaale dañ leen ubbi bunt yi bokkaale du dara léegi ci àddina bi bokkaale du dara léegi Sénégal waaw te yàlla du nangu ko bokkaale de ku bokkaale yàlla boo dee yàlla dalay làkk ay aaya yu ne keng la dëgër këj aaya yi gën a dëgër ci alxuraan yooyu ci la bokk innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wala aaya boobu nu mu graawee yàlla ne ku ma bokkaale rek araamal naa ci yow aljanna wa man yushrik billah ka annama xarra min assama ku bokkaale yàlla mu ngi mel ne ku xaawee ko kaw asamaan ku xaawee kaw asamaan bu daanoo nu muy def yàlla mu ne ñi may bokkaale li ñu jàpp mu ngi mel ne ndéegu njamala suratul ankabut wa inna min awhanil buyut la baytil awtabut yàlla mu ne ñi bokkaale li ñu jàpp mu ngi mel ne ku jël néegu jargoñ def ko def ko néeg néegu jargoñ lañ la yàlla c'est que nit ñi bu ñu comprendre alxuraan du ñu am problème xoole yàlla mu ne ini lazina tadduuna min dunillah lan yaxluqu zubaban walaw ijtamau lahu ñi ngeen di jaamu te du yàlla defaruñ sax weñ yàlla romb ñay romb gëléem romb fas romb mbaam romb yëpp mu ñëw ba weñ mu ne ñi ngeen ñi ngeen di ñi ngeen topp ñu ne ah yàlla mu ne weñ sax defaruñ ko mu ne buñ daje woon sax mënuñoo defar weñ allahu akbar walaw ijtamau lahu xam nga lu ko raaw mu ne bu weñ kofoon ci son góom dara mënuñu koo delloo moo tax xam nga lu mu tëj aaya bi dufa taalibu wal matlub wa ma qadaru llah haqa qadrihi la màggalu leen yàlla nu ngeen ko war a màggale ñi ngeen di topp ñoo yambare dara lañ mënut mën a dëgg mais aaya yooyu tey boo ko fi waxee kii day dingat kii ah yemul ci li yàlla wax kese xam nga ni mu ko waxee yàlla ko wax di yàlla noonu la ko waxee ini lazina tatuuna min dunillah ñu ne ah lan yaxluqu zubaaban dafaruñu weñ loolu daaye yàlla mu ne ñi may bokkaale du ñu dugg aljanna hatta yalijal jamal fi sammil xiyaat du ñu dugg aljanna lu dul gëlëm moo dugg ci bën bënu poso puso waaw léegi nag ñu ñu oyofal oyofal bokkaale waaye ku mu neex nga bokkaale xoolal rajo yi ni ñu encouragé nit ñi ci bokkaale yéen a ngi déglu gisaanekat yi ndeysaan keroog am na benn jigéen ku ci wax wax ju am solo mu ne gisaanekat yi ay mbër yu retraité ay mbër yu retraité xam ne mënatuñ dara amatuñ combat ñu nekk sëriñ commencé gisaane ay douanier yu retraité ah ay jaaykatu socc yu mënatul jaay ay ñoo xam ne toog nañ ci grand place ba màgget mënatuñu tus ñooy nekk ay sëriñ tariyaa ku nekk gént dañ maa sol xam-xam waaw commencé di wax ñëpp nekk ay gisaanekat di génnoolu nit ñi ay sarax ñiy sarax ñaata jàkk ngay dem nga julli ba pare ñuy joxe ay guro ak ay sondel sarax yooyu ku koy génne ci lan nga ko génne ay buxaaba ñoo la koy sant mbokk yi jaamu yàlla dafa war a set warul ànd ak dara yàlla nee na wala tushriku bihi shay'an bu leen ko bokkaale ak dara su ñaari jeexee lu ngeen ciy teg mu ne wa bil walidayni ihsanan na ngeen rafetal ci seeni ñaari wayjur ginnaaw yàlla fi yàlla kan la ci teg ah ñaari wayjur lan moo tax tey duñu fonk suñu wayjur yi lan moo tax kuy xëy ci ñun doo jaar sa néegu papa ak sa néegu yaay asalaamaaleykum nuyu leen ñaari loxo fóon leen ne leen maa ngi xëy lu tax soo ñëwaatee doo ñëw duñu yëg ne ñëw nga ah lu tax loo am doo ko bokk ak ñoom ñaata sénégalais tey ñoo am nekk ay millionnaire toxu seen i kër ndey ak seen baay dem ba ay jënd ay Nord Foire Est Foire Almadies tërë tërë tërë tërë tërë ça va pas téléphone rek est-ce que yow bi nga nekkee xale bi nga juddoo ñu lay boot ba bi ngay jàng parce que sa papa dafa toxu woon daal lay bàyyi ci kër gi toxu moom jabaram kese ñu ne nga mun a jooy guddi foog ñu bàyyi la fi nga mun a jooy kenn du fi nelaw ñu toxu bàyyi la fa ñun ñi ñëpp tey jii sunuy ndey ak sunu baay bi ñu juddoo bu nu bàyyi woon ci kaw lale daa toxu ndax danañ tekki kan moo la toppatoo ba nga mel ni nga mel kan moo la doon dimbali kan moo la doon financé léegi nag naka la sa papa jàppee ci yow jàpp ci yow jàpp ci yow ba nga nekk nga dem bàyyi ko non dama defar sama vie parce que bu ma nekkee ci kër gi du ma mun a am dara hay paa bi li tax amul dara yow yaa tax tey koo fi gis mu toxu rek lan lay wax dama bëgg a defar sama vie dama bëgg dama bëgg parce que su ma nekkee ci kër gi ah kër gi ku ñëw fii ngay nekk gan yi nangam nangam te salaire bi nangam nangam foo ma organiser foofu la ñàkk gëm yàlla nekk dafa ne salaire moo lay dundal dafa ne salaire moo lay dundal instant yi ñu toll man damay jékki-jékki ma xam ne man sama papa moo ma ëpp moo ma ëpp doole moo ma ëpp barke dangay gis paa bu samp këram yor ñeenti jabar kër gi mooy seize seize bi mooy ñëpp fii la ñuy ñëw jarbaat mbokk yëpp te kër gi mosuñu ñoo bañ a xëy ndékkiwuñu mosuñoo xëy añuñu mosuñoo xëy reeruñu pendant yow bi ngay dund ba keroog paa bi di dee yéen a ngi añ yéen a ngi reer yéen a ngi ndékki lépp ñu ngi koy def te paa bi liggéeyu la yenn saa yi wala salaire am kenn xamul salaire am temps yooyu salaire lan la mais yàlla barke la ci def parce que dañoo baaxoon nga gis tey koo xam ne ci building yi lay liggéey ñetti nit sax non da ngeen ma ko war a wax quoi ma programme leen di ñuulal kanam moo tax du am dara xaalis bi du am barke non dañ ñu ko war a wax so doon ngara no dee min min nganda on ngarot moo tax alal bi amul barke ñee ba ñu nangoo ba ñu nangoo bokk li ñu am lépp am barke suñu amul sax yàlla programme kenn eh eh demal nga jox leen nga gis ku ñëw rek wàcc ñaari saaku jeeb ñu ne la allah ari mais tey parce que dañoo nangoon am li ñu bokk moo tax seen kër yi am ba xoolal ñeenti soxna ci kër ñett ñaar paay ci bëri loolu lañu am famille bi yëpp ci kër gi kan demul waxuma sax doom yi mais mbokk yi ñëpp dañuy solu mais bis bu nekk ñu ngi lekk ñu ngi naan ceeb dara du taal la wala ñun tey yëpp si ñun dañuy liggéey mais diggu weer noonu demal demal mu ñu labal ñu yooyu yooyu yëpp jeex na gis nga amul barke gis ngeen alal ji amul barke ceeb bi ñuy lekk sax saful maanaam lu nekk ñu def ko ci façon lu nekk ñu dëbb ko tëmbal ko ci parce que barke la yàlla dindi ci suñu dund kon nañu fonk suñuy waajur kenn du teral ndeyam ak baayam ba ñu génn ci sa loxo yàlla di la seetaan jamais kenn du jël alalam bokkook ndeyam ak baayam wallahi bañ na la jërëjëf nit ñi suturaale yal na la yàlla suturaale noonu ngay torox jamais jamais même boo doon naan sàngara sax doo torox parce que seeni ñaan yàlla daf la koy fay duwaawul waalidayni mustajab yonent moo ko wax te yonent lu wax dëgg la te ndeysaan li ko raw mooy xoolal fa safa vaak ay sonaluñ la ci dara sax ah benn saaku ceeb booy bokk ak ñoom wala benn facture courant boo leen di fayal wala benn courant ah te sax ci loolu ngay def lépp ñoom bu ñu amee indi encore bu ñu amee indi bokk ak yow naka la sa papa di bokk ak yow lépp bi mu amee toll ci digg ndëndam bokk ak yow lépp dem ba màgget mënatul dara nga daw rocceeku day gis koo xam ne am na juróomi doom ñëpp ay fonctionnaire lañ kenn dëkkul ci kër gi ñëpp a daw booy gis nga man maay sa grand bi ma sonnee damaa daw booy bi naa oui kooku tamit daw kooku tamit conseil morom mooy booy dawal gis nga paa bi boo ko toppee doo am dara moo tax da ngay am mais du barkeel parce que sa papa kontaanul ci yéen kilifa gi kontaanul ci yéen da ngeen dem ba ne xam nga fu muy mujj ndaw si indi fameem ñuy lekk waaw nga leen di faj di leen defal lépp bàyyi sa ndey ak sa baay ñeneen di ñëw di ko lekk ñu koy lekk ci ngénte yeeg ndey ndikka yeeg soutien yi carte soutien sabar yeeg foofu lañ koy lekk ba mu jeex waaw fu sa papa tourné dégg ñu ne ko sa doom jee baax mu ne ah am na koo xam ne ndeysaan dama jiite juma sëlma rek kenn woo ma roi bu doy hôpital bi dugal ma ci bureau tëj simmi ay veeram dama am naa ñetti doom kenn ki ñëm maa leen fayal seen jàng ba mu ñu tukki waaye xam nga kenn su mu nekk sama kër dal baa ngi daanu barki démb kenn ki ñëw jënd ngandum nag ne da ko yóbbul sëriñam ci événement yu xewoon ma ne ko yaag nag bi ak sëriñ bi yàlla ngeen dee ci yoon bi boo yeeg bul yeeg loolu la ko ñaanal mu ne ko bul ko yóbbu mu ne dama ko yóbbu mu ne ko xam nga lii nga yóbbu amoo ci barke parce que sama dal baa ngi ni daanu defaruloo ko xoolal loolu nu mu grawee ma ne ko jox ma numéro téléphone kenn mu jox ma ma woo ko wax ak moom mais ma gisaat paa bi ay weer mu ne ma defaral ñu ngi ma koy defaral loolu fan lañ ko teg fan lañu teg di liggéeyal ñeneen ñi bàyyi sunu ndey ak sunu baay fan lañ ko teg lu dul ci ñàkk jom ci ñàkk ñaan ci ñàkk ñaan te ku amul sa ñaani way jur bu yow xam da ngay torox ku amul sa ñaani way jur doo tekki lan la yonent bi wax ridallah wa suxtillah benn oustaz da doon jàngale ci benn école mu ne xale yi wax leen ma fu aljanna nekk hadis bi maa ngi koy maa ngi koy liir barki démb benn borom xam-xam daifal hadis bi mu ne indil leen ma aljanna fu mu nekk benn élève ndeysaan bi élève yëpp ñëwee mu leen di laaj ku nekk ne ñun xamuñu àjjana bu mu nekk benn élève daal di génn ci poosam benn mbuus bu am suuf mu ne ko aljanna fii la nekk mu ne ko aljanna nu mu nekkee fii mu ne ko yonent bi nee na aljanna mu ngi sunu suufu tànku yaay man dem naa ba ci armeel yi tibb sama armeelu yaay indil la ko mu ngi nii foofu la aljanna nekk aljanna mu ngi nekk ci sunuy ndey hadis bi même bu wéruloy ah maanaa yi xel nangu nag aljanna mu ngi nekk sunuy ndey dañu fonk suñuy wayjur maanaam ñu nag tubaab bi duñu benn tubaab mooy am ndey ak baay yóbbu ko maison de retraite garder la ñu koy garder waaye ñun sa ndey ak sa baay dañ ko war a da nga war a jaamu ci ñoom yàlla Abdullah ibn Abbas gis na ku boot papaam di wër ak moom kaaba gi mu taxaw waa ji daw sept tour ñëw teg mu ñëw nuyu ko ne ko kii kan la mu ne ko sama pap xanaa jeexal naa mu ne ko tàmbali goo am na ku ñëw tàggu yonent bi ne ko jihaad mu ne ko sa ndey ak sa baay ñu ngi dund mu ne waaw mu ne demal nga jihaad ci ñoom ñaar yàgg naa leen nettali qissa àndandoo Moussa rafiqu Moussa fil janna Moussa dafa laaj yàlla damay dugg àjjana mu ne waaw am na ku may àndal mu ne ko waaw am na kan mu ne kan la mu ne ko taxawal ci kër gi buntu kër gi léegi nga gis ko benn xale bu góor romb mu ne kon kii la ah léegi lan mooy problème Moussa dinaa fexe ba xam lan la def pour dugg aljanna waaw yàlla la laaj ndax damay dugg àjjana yàlla mu ne ko waaw mu ne kan laay àndal mu ne ko taxawal bu taxawee léegi nga gis ko mu taxawari xale bu góor romb ko mu ne kii la mu topp xale bu góor bi waxu ko waxu ko daal rek da ko topp ba xale bu góor bi dugg ci kër mu taxaw di ko xool xale bu góor bi dugg ci benn néeg génn basang lal ci digg kër gi dugg ci biir néeg bi yenu fa benn màgget bu jigéen teg ko ci kaw basang bi tekki mbuus mi mu indaale di dagg yàpp di jox ndaw si muy lekk di jox mu mu lekk mu ne indi ko ndox mu naan mu delloo ko lemaat basang bi delloo jël mbuus mi wékku jël fett yi wékku bu génn rek Moussa ne ko salaamaaleykum mu ne waaleykum mu ne ki nga doon jox lekk sa lan la mu ne sama yaay la foo jëlee lekk bi ne saa yu ma xëyee dinaa dem ci àll bi rëbb ay njombor rey fees lakk ba mu ñor ma indi jox ko mu lekk mu ne waaw boo ko joxee mu lekk ba pare nga may ko mu naan lan la lay ñaanal mu ne daf may wax allahuma ij'al ibni haza maa musa ibnu imrana fil janna yàlla yàlla na nga boole sama doom ji ak musa ibnu imrana ci aljanna musa ne ko absir fa ana Moussa fa anta rafiqi fil janna kontaanal man mii maay Moussa yow yaay sama àndandoo biir aljanna kontaanal kooku fu mu amee loolu day kon wa bil walidayni ihsaanan nañ rafetal sunuy wayjur bu nuy bàyyi sunuy wayjur di defal ñeneen et puis ku defar sa wayjur waxuma dara sax même adduna bi rek di nga am teraanga xoolal sa papa sol yére bu rafet waaw wu tëddee ko ali wala ni kam ni foo jëlee mbubb mi sama doom moo ma ko jox foo jëlee oto bi sama doom moo ma ko jox ku defaraat kër gi sama doom kii kay ñaanal leen ma ko yàlla oh loolu du la bàyyi dañ toppatoo sunuy ndey ak sunuy baay mbokk yi bu ñu kenn nax wa bi zil qurba ak sunuy jege ñaale sunuy mbokk jege ñaale zil qurba ashaabul qaraba ñi nga xam ne dañ laa jege ci deret ay frère kay gis samba àllar bàyyi bàyyi ndey bàyyi bàyyi ay mbokk ñeneen ñoo lay wër et puis ku bëgg say sa sa say frère tagg la te naroo ne ko ku baax am na ñoo xam ne c'est parce que dañuy may ñeneen ñooñu taxaw naan la jërëjëf jërëjëf Caam jërëjëf Saar jërëjëf Sow waaye sa frère boo ko defalee xam nga du taxaw fi naan la jërëjëf wala loolu doo ko defal ñu bëri dañu bëgg ku leen solal robb di leen tagg di leen di leen mais say mbokk duñ la defal loolu su say mbokk yow booy faraan di lekk yàpp di lekk nangam di dem bies doore benn waaye nee na ma oustaz yow da nga wax bies doore xanaa da ngaa bëgg mburu ko déedéet wallaay daf maa jege rek ma ci joxe misaal ah mbokk yi xoolal yow ngay lekk loolu yëpp say mbokk di lekk di ndekkee soom bi di reere cere yoo amul soow amul suukar ban njëriñ la am te fu la gis ngay ngand ngandulu di yëkkati garaam bu ngand say mbokk yaa ngi ne di torox loolu ban diine la li nga am bokkook say mbokk te li ci garaaw mooy boo amee nga daw leen nga dem nag léegi ba ñàkk ba torox ba feebar nag léegi mënatoo dara lu ñuy wax anay mbokkam aka bëri fi ay nit di ñu delloo seeni mbokk ñëw nag sëgg maa ngi jégalu rek torox rek torox rek torox rek te maa ngi jégalu wal kay seetaane rek kay léegi yeewu naa fekk sa trop tard fi nga yeewoo yaa ngi ni di waaj a dee mënatoo dara loolu du diine yàlla gis ngeen li mu ñuy wax xam ngeen suñu borom mooy wax lii moo tax lislaam mbokk yi même bu jógewul woon ci yàlla sax jar naa dund waaye li na leen woon ne ci yàlla la jóge xoolal ku lay fonkaloo sa ndey di la fonkaloo say baay di la fonkaloo say mbokk wala fi nee nañ ku bàyyi say mbokk nga gis ku téye ay mbokkam waaw naa leen nettali benn xis diggante njombor ak mbonaat mbokk yi njombor ak mbonaat ku dàq daw moo ko dàq daw de njombor daa gis mu naan ne ko yaa fi gën a yambare yow yaa fuus nu dara nga mënut dox sax mënoo ko njomb mbonaan ne ko danaa bu ñu coursé ma raw la yé xool leen kii laa ilaha kii de dafa repp mbonaat mbonaat ah xam nga ko xam nga mbonaat ah njombor saraxule nga eh kan mooy saraxule fi ma Amadou kii. comprendre nga. aywa aywa mu nga wax ko mbonaat tamit mooy lan. ayo ñu ne mënaat bi mu ne jombar bi mu ne yow mbonaat yow da nga maa yow yow da ngaa rek yow nga ne lañ course ban bis mu ne dimanche bii di ñëw mbonaat daal di ñëw dajale ay mbokkam ne ah problème am na de yàllal ak njombar ñoo war a course dimanche ñu ne loolu amul problème ñun ñaata lañ ci koñ bi ñu ne 20 waaw dañuy tasaaroo rek 20 mètres yu nekk na fa kenn taxaw rek xam ngeen moom kenn la moom amul mbokk 20 mètres ku mu romb rek bu doyee ba ci kanam rek la gis keneen ci kanam xam nga xàmmewu leen ñëpp gaa ñëpp niróo waaw ñu ne bismillah départ rek sa waaye mu départ vrrr gis kenn ci kanam muy kii moom mu ne vrrr gis keneen mu ñëw ba ale bi gis gars yi kooku taxaw ne ko nii lan moo tax mën a raw ko daa may mbokk ko amul ay mbokk di nga torox loolu dafa leer la leer suñu bopp ko amul ay mbokk neex a duma wala bi nee nañ ko amul foo wéeru bu max la yomb kon nañ jàpp suñuy mbokk yàlla nee na wa bi zil qurba ak way jege ñaale yi mbokk yi wal yataama ak jirim yi ñi seen i baay gaañu voilà nga nekk ak nit ci quartier ah baayam gaañu nga nekk sa mbokk baayam gaañu nga nekk magu papaam papaam gaañu nga nekk nijaayam papaam gaañu ñu bàyyi la fi ñu dañ leen war a dimbali ñu nekk ay xale yu ndaw dañ leen war a gérer bañ a yàq seen alal dañ leen war a former dañ leen war a encadrer dimbali leen yataama mais xoolal tey yàlla na inna allazina yaakuluna amwaalal yataama innama yaakuluna fi butunihim naaran ñi nga xam ne dañuy lekk alalu jirim seen bàyyi dee bàyyi leen ginnaaw ñu lekk seen alal ñooñu innama yaakuluna fi butunihim safara la ñuy lekk yonent bi nee na ana wal kaafilu yatim fil janna ka haatayn maa ki yar jirim ba jirim bi dem di liggéeyal boppam maa ngi moom nii la ñuy dëkk biir aljanna mu daa def nii ñaari baaraam yi ana wa kaafilul yatim yaa ngeen alquran yàlla mu ne wala yahudduuna ala ta ki araayta allazi yukazibu biddin fa zalika allazi yadul yatim wa taakuluna turasa akalan lamma jàng ngeen ko dañuy lekk ndono lekk gu doy waar gu yéeme kon nanu bàyyi xel lii la yàlla dina wax aaya yi dafa ñëw di wax ci suñu dund ci société bi lay wax socialement ndey baay mbokk ah yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax wal masakin miskin yi yàlla nee na nañu toppandoo nañu toppatoo miskin yi miskin ci la bokk kan muy miskin mooy ki nga xam ne bu añee du reer bu reeree du ndékki miskin mooy ki nga xam ne li mu am doy ko dañ leen war a yërëm dimbali leen rawatina na nga dëkk ak ay miskin yonent bi doon na wax abu dar abu zar boo toggatee bërilal ñeex mi boo mënta maye ci yàpp bi nga tibb ci soos bi maye waaw ab julit day yërëm miskin yi mu dëkkal yonent bi saa salaam doon na ñaan yàlla yàlla yàlla nga def miskin ma dund nekk miskin dee nekk miskin dekk ëllëg yowmal qiyaam ànd ak miskin yi yowmal qiyaam miskin yi ñooy njëkk a dugg aljanna borom alal yi xam ngeen ñaataat fiir yaaya xamsiina xariif ca yàlla juróom fukki at ci yàlla gaa yi doog a ñëw ndax inna yawman inda rabbik ka alfa sana mimma ta'ud benn fan ci yàlla ñun suñu junni at mooy benn fan ci yàlla waaw déedéet adduna amaguñ fi fan de moo tax bu nu dekkee ñi am juróom fukki at juróom ñaar fukki at bu ñu leen ne ñaata at ñu ne lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ñi am téeméeri at ñaar téeméeri at yéen ñaar ñu ne in labis na illa yawman adduna amul valeur ba léegi adduna bi ci yàlla amagul fan wala bi jant bi tàkkeeg léegi allahu akbar ñi fi ab at bu ñu dee yowmal xiyaam bu ñu leen dekkilee nee naa ñaata at nga am ñu ne man benn bis laa fa am dëgg dee fekk waa ji def na fi fukki juróom téeméeri at mu ne benn fan laa fa am de in labis naa illa illa yawman ñeneen ñe ñeneen ñi ne lam yalbasu illa ashiya benn benn man dama am benn ngoon rek fekk waaye am na juróom fukki at ci àdduna mu ne benn ngoon laa def rek dee kenn mu ne aw duhaa man da yoor yoor rek diggante sept heures ak gars yi di ndékki rek dee naa fekk am na juróom-ñaar fukki at fii ba pare xam nga lu garaaw yàlla mu ne fas alil adin laaj leen mathématicien yi laaj leen ko mathématicien yi àdduna amul valeur yàggul ñooy ne bu istu ana wa saa ka haatayni bi ma yàlla di yónni ak àddina bu muy jeexee mu ngi mel ne ñaari baaraam yi surante na bu istu ana wa saa ka haatayni moo tax waruñu jënde àdduna sunu àllaaxira jamais wala delloo sunu xel ah zil qurba way jege ñaale wal yataama yatiim yi wal masakin ak miskin yi ak kan wal jaari zil qurba ak dëkkandoo yi nga xam ne ay mbokk ngeen al qarib li nasab al musa awil musahara ñi nga xam ne dañ laa jege ci deret wala ñu nekk say goro ginnaaw mbokk yee mbokk bi moo fit moo ci tegu jaari zil qurba mooy mbokk boo bokkal deret balaa ngay dem di defil keneen kooku te ñooñu sarax boo leen sarax ay tiyaaba yu bëree bëree bëree bëree bëri yu rëy rëy rëy rëy nga ci am aljaari zil qurba jële nañ ci Aïcha radiyallahu anha wa arda mu ne inna li jaariyatayni fa ila ayuhuma aw uhdi yonent man de am naa ñaari dëkkandoo yu ma jege kan laay njëkk a may qaala ila aqrabuhuma minka baaban ki la gën a jege bunt ki la gën a jege bunt moom ngay njëkk a jox wal jiiraani salaasa dëkkandoo yi ñett lañ ki nga yoreel benn àq ki nga yoreel ñaari àq ki nga yoreel ñetti àq kon nan góorgóorlu ci sunuy mbokk ah wal jaari dëkkandoo zil qurba bu la jege ban jege ñaale ci deret wal jaaril jumb ay al ajnabi étranger muminan kaana aw kaafiran ak dëkkandoo boo xam ne bokku leen deret moo xam gëm na yàlla nekk jullit ngeen a bokkoñ jullit la wala ngeen bokkoñ mu nekk yéefér su dee jullit la yoreel nga ko ñaari àq àqu dëkkandoo ci koñ bi ak àqu jullit bi su dee yéeféer la yore nga ko benn àq mooy koñ bi gis nga islaam de gis nga islaam islaam a ngi nii yéeféer bi sax yoreel nga ko àq ban àq koñ bi yéen a ko bokk respecté lool bul gaaree sa oto buntu këram bul accéléré sa oto buntu këram bul tuur ndox buntu këram ay doomam ak say doom sa waa kër ak waa këram yow yaa ngi moom waaw gis nga xoolal diine bu respecté ba respecté yéefir koo bokkul diine mu ne la yoreel nga ko àqan yoon doon wax ne man aza zamiyan faqad azani wallahi ku tooñ étranger ku bokkul diine nga lor ko man nga lor man yonent moo tax suñu islaamu tey yéeme na islaamu tey islaam boo xam ne ay bomb ci biir jàkk nga gis ay jullit di reyante seen biir ah jël bal dóor ko jullit tël mu këpp nga mel ne ku rey weñ xaw ma ëllëg fu jëm sooy xool télé bi temps yële damaa grévoon télé wallahi dama ko grévoon télé bi Al Jazeera dama ko grévoon ndax journal bu ma xool rek rey nañ ay nit rey yu bon yu ñaaw da ngay gis immeuble bu ñu bombardé immeuble bi daanu ci kaw nit ñi nit ñi yëpp xeeri tànc leen ñuy gas xeeri pour ñu génn ay xale yu ndaw ay liir ay jàkk yu ñu def ay attentat ay marché sa yaram day daw loolu loolu man diine la ba pare li garaaw ñu ne la ay jullit ñooy def li ay jullit di ko def ay jullit jullit di rey mbokk jullitam tey rek nga koy gis Abu Zar bi mu nee Bilaal doomu ko ñuul gi bilaal ñëw ci yonent bi ne ko inna abazar yu ayiruni bil ummi abazar day mu ngi may tuumaal ndeysaan di ma tooñ ndax sama ndey ndax damaa ñuul yonent bi daan ne abazar ya abazar innaka imruun fika jahiliya abazar yow setagoo a ndek am na lu des fa nga sangu nga fa nga raxasu baax nga trop waaye dese nga jikko ceddo ba mu dañ rek abazar këpp ci suuf daane bilaal ñëwal jëlal sa tànk tegal fii sama lex ndax ndax loolu mun maa setal bilaal ne maazallah an ada qadami ala wajihin sajada lillah yal na ma yàlla musal ma jël sama tànk di ko teg ci kanam gu sujjootal yàlla waaw léegi boo jël tànk bilaal rus naa jël tànk di ko teg ci kanam gu sujjootal yàlla yow nga jël yat wala nga jël jaasi wala nga jël pistolet dóor ko ci kanam gu sujjootal yàlla lu gën a garaaw loolu moo tax ñee ñoo déggoon diine bi ñun déggunu ko dañuy forek noonu yàlla jubal ixwatal iman borom bi nee na wa saahibi bil jamb الصاحب بالجنب الزوج والصديق الملازم كالتلميذ والرفيق في السفر من نيك سا سخنا نيك خاريت بو اندال من نيك élève بو بوكال كلاس من نيك اندندو ci tukki صاحب الجنب moy kep ko andal ci tukki yoral nga ko ak xolal tukki sax bo ande nit nek yoral nga ko ak الله اكبر ay way l'islam way ya layta qawmi ya'lamun li waa ji waxoon keroog ci suratu yasin yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin wallaay ñun ñëpp war a sant yàlla bi nu yàlla defee ay jullit ñun ñëpp war a sant yàlla bi nu yàlla dimbalee ba ñuy góorgóorlu ci suñu diine di déglu alquran su nit ñi déglu woon alquran du ñu am problème te ay milliards yi ngeen di dégg dimbale ñu ci miskiin yi xoolal li xoolal li ñii yàlla wax yëpp mooy da nga leen war a dimbali da nga leen war a jàppale ñaat mu ngi ni borom bi nee na subhanahu wa taala wabni sabil ak doomu tukkikat ku tukki étranger jóge dëkkam ñëw ci seen dëkk tumuranke yàlla nee na jàppale leen ko wa ma malakat aymaanukum ak seeni loxo ndeyjoor lu mu moom na ngeen yëg ne inna allaha yàlla laa yuhibbu bëggul man képp koo xam ne kaana nekk na muxtaalan kuy nganda ngandulu faxuur di réy réylu al ixtiyaal azuhur fi fil mashi mooy loolu xale di def tey di bonde mooy génne dënn bi baa di teg di bonde naan nii quoi di pant léeg nga gis ci kenn koo xam ne sa waay boo amoon film da nga koy filmer rek muy ñëw ndeysaan boo amoon film da nga koy filmer rek ndax ni muy doxee waaw ni muy bondee naan ni waaw allahu akbar surtout nag bu entraîné ba ceene nag dafa ne moom moo mën asamaan bu asamaan doon wàcc benn loxo la koy dee loolu ku mel noonu yàlla bugg képp kuy dox di bonde wala ngay dox di nganda ngandul wala ngay tëb di teg catu tànk di génne dënn déglul aaya bi yàlla ne ne inna allah yàlla laa yuhibbu bëggul man képp koo xam ne kaana nekk na muxtaalan kuy ngand ngandulu faxuur di tiitaru di génne dënn waaw sayid xawaa rahimahullah nee na bu ngeen jàngee aaya yi bàyyi leen xel aaya yi fu mu jeexee wala yàlla bi mu dénkaane ñii ñaata nit la yàlla dénkaane lan la yàlla dénkaane ci aaya bi jaamu leen yàlla ndénkaane la wala tushriku ndénkaane la wa bil walidayn ndénkaane la zil qurba ndénkaane la yataama ndénkaane la masakin ndénkaane la jaari zil qurba jaaril jam wa saahibi bil jam wabni sabil wa ma malakat aymanukum ñaata ndénkaane la xam nga lu mu ko tëjee yàlla bëggul kuy ngand ngandulu ci ay mbokkam yàlla bëggul kuy ngand ngandulu ci nit ñi yàlla bëggul kuy ngand ngandulu ci pénc mi yàlla bëggul kuy ngand ngandulu foo mën a toll waaw dangay ngand ngandulu bisa ngi ñëw yàlla dina la wàcc ci kaw nga nekk yàlla na la dugal ci kaw suuf ñu suul la suuf si nekk sa kaw ah nga bëgg a jóg sax yi ne la nel teg waaw da nga daan dox suñu kaw di ree tey yaa ngi fii di jooy da nga daan lekk suñu kaw tey ñu lekk la ba nga jeex bay ngand ngandu benn waaye da doon ngand ngandu ah taarifu na man ana xam ngeen may kan benn borom xam ne ko naam naarifu man an mu ne man ana mu ne ko anta alladi maralta bi marril bawli marratayni yaay ki romb fu ñuy tuure ndox ñaari yoon bi ngay génn ci sa papa di ñëw ci sa yaay fu ñuy tuure ndox nga jaar bi ngay génn ci sa yaay di ñëw ci àdduna fu ñuy tuure ndox nga jaar loxo yi la njëkk a laal dañoo raxasu boo dee ñi lay mujj dañuy raxasu kon looy rëy rëylu doomu aadama warul rëy gis ngeen doomu aadama fu mu jaar yàlla bi mu lay wax ne yow yaay kan daf la neex dañ laa bind ci mimma immahin allah ndox mu doyadi la la yàlla bindee ndox moo xam ne dafa salte ku mu taq sa yaram boo xëyee suba sangu ku mu taq sa yére boo xëyee suba fóot ko kon looy ngandu ngandul xam yoo xam ne boo leen di nuyu sang ñu ne ñu ne ni jox la catul allah fekk xamoo yaay kan nañu xam ñun ñooy ñen wàcce suñu bopp mata man tawaada lillah rafaahullah ku wàcc ngir yàlla yàlla yonente bi neen yàlla yëkkati la ku wàcc yàlla yëkkati la waaye ku jóg al kibriya rida yi yàlla nee na rëy rëylu sama mbalaan la ku xëccoog man ma yëkkati la ba ci kaw dóor la ci suuf delloo ko place am yàlla rek moom moom rëy rëylu ndax yàllaay ki rëy doomu aadama buy rëyrul tamit du tax mu rëy da ngay gis waa yuy ngand ngandul benn bis rek yàlla yëngal bëñ bi lan moo gën a tuuti ci yaramu nit bëñ wala yàlla yëngal bëñ rek soo ko nee lan la dootul mun a wax mu ne dootul wax de une semaine bi yëpp du wax nii rek gis nga te bëñ rek la yàlla yëngal bëñ bëñ bi rek la yàlla yëngal nga am problème ana ngand ngandul te kii ngand ngandulu na yëg ne ñëpp a jàpp ci moom pour mu nekk am ñu jàpp ci dàll yi ana ude yi am ñu jàpp ci yére yi ana tailleur yi am ñu jàpp ci kër gi ana maçon yi am ñëpp a ñëw jàpp pour nga nekk su ñëpp bañoon doo réeréelu ah waaw kon ci aaya bi la ñuy yema du ñu yeggali saar bi incha allah ba samedi bii di ñëw ñu yeggali ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu